alhamdulillahi ala nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi wa ashaabihi wa dhurriyatihi wa man ittabiahum bi hudaahum ila yawmi albaasi wannusur wa radiyallahu an sahabati ajmain wa man ittabiahum bi hudaahum ila yawmi albaasi wannusur bokk julli ñi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay yi sukran ci dakar midi point net li بفضيلة أميرنا seen الشيخ الحسن Sène أيده الله ونصره ngi sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay yëpp fu ñu mën a toll di sant bu baax sama rakk Chérif Diamé Mame Dior mobile marché Parcelles Assainies unité set di ko gërëm mook ay rakkam yi mu nekkal samay jarbaat Lamine ak Pape Ablaye ñu ngi sant ñëpp fu ñu toll ñu ngi topp suñu jataay tey nag mbokk yi ñu dikk ak yéen ci suñu jataayu nay euh, iñaan iñaan nag mbokk yi du suux woo xam ne ku mu nekk ci yow am nga problème parce que dañuy wax ne ku mu nekk ci yow suba soo xëyee da gën di reculer te ki nga iñaane yàlla da koy gën di yéegal iñaan nag aslan suñu ko waxee mooy koo xam ne dafa weddi xéewalu yàlla ci kaw nit aka bari ndax iñaan bind bu bon la wala jikko ju ñaaw la parce que kum nekk ci yow rek am na suux woo xam ne mi ngi ci soo ko teelu la dagg bu màggee dina la lëjal moo tax yàlla wax ñu ci sóoratul falaq fu ñu mën a toll ne niñ ciy muslu wa min sarri xaasidin isa xasad boo jàngi sóoratul falaq ba ci mujjantal ga moo ko ferme yàlla ngi ñu ciy muslu loo ci ayu añaan wala ci bon bonu añaan muy loo xam ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax musu cee mucc parce que dañ ko naan añaane di ko def lu ne ba benn bés sax yii sayyidina jibril alayhi salaam dikkal na ko ne ko yow mi yàlla yónni ndax dafa am looy jàmbat yonent bi ne ko waaw am na lu may metti di sayyidina jibril alayhi salaam jox ko mocc ga ne ko na nga ko jàng ëf ko ci sa yaram soo ko defee yàlla saafara la lépp mooy bismillahi urqiika min kulli suuin yudiika wa min charri kulli nafsin aw aynin xaasidin allahu yashfiika bismillahi urqiika loolu la ko sayidina jibril alayhi salaam joxoon jëlee nañ ci abdullahi ibnu umar anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ay xam ngeen ayu naasi afdal ndax xam ngeen kan moo gën ci nit ñi ñu ne ko yow mi yàlla yónni ñun de xamuñu ko xanaa yàlla ak yonentam ñoo ko xam yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne leen kullu marmuumul qalbi sadduqul sa qaalu ya rasulallah sadduqul lisaani naarifuhu fa ma marmuumul qalb qaala huwa attaqiyu naqiyu laa isma wala bagya wala xilla wala xasada yonentu sallallahu alayhi wa abdullahi ibnu umar nee na yonent bi daf ne xam ngeen kan moo gën ci nit ñi ñu ne ko yàlla ak yonentam bi de xanaa ñoo ko xam yonent bi ne leen képp koo xam ne xol ba laa biir na làmmiñ wa dëggu na ñu ne ko làmmiñ wu dëggu de xam nañ ko waaye la xol bu laa biir lañ xamul mu ne xol boo xam ne daray kañaan nekku ca dara yi mbañeel nekku ca daray coxor nekku ca xol booba de jëmm ja mu nekk dara gënu ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ci xaddis ne laa tabaaxadu bu leen bañante wala taxaasadu bu leen iñaanante wala tadaabaru bu leen wanante gannaaw maanaam tàqalikoo di dóorante wala tuqaataaw bu leen tàq tàqal tàqalikoo parce que bañante muy jur iñaanante iñaanante muy jur wanante gannaaw wanante gannaaw muy jur tàqalikoo moo tax bu ñu bëggee mucc ci loolu lépp wa kunu ibadallahi ixwaana nañu nekk ay jaami yàlla yu saint yu sincère yoo xam ne li ñu yàlla sant lépp danañu ko jëfe moo tax yonent bi waxoon ne ci bañ jullit jàppal mbokk jullitam gàkk-gàkk moo tax yonent bi waxoon ne dafa jaaduwul ci benn jullit mu téyal mbokk jullitam lu toll ni ñugg ñu guxal ñetti fan ku ko def sax boo jullee ñaare sa julli du nangu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu ko wattandikuloo parce que yi muy jur dafay bari te yooyu bu duggee ci société bi daanaka sànkar gu dugg ci guro la moo tax daana wax ne ala inna li niamillahi aadaan qiila wa man aadaau niamillahi ya rasulallah qaala alladina yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadlihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne xéewali yàlla yi sax maa ngi leen di yëgal ne am na ay noon ñu ne ko ah yow mi yàlla yónni xéewalu yàlla kuy noonam mu ne koo xam ne añaane na jaam bu yàlla jox xéewalam moo tax ku yàlla jox xéewalam rek sooye boo nga yéene ko ko su fekkee bëgg nga jàmm ndax lan yonent bi nee na wa iyaakum al xasada na ngeen wattandiku añaan fa inna al xasada akzabul xadis fa inna al xasada yakulul xasanaati kama yakulu naaral xatab na ngeen wattandiku kañaan ndax kañaan day lekk jëf ju baax comme ni matt sawara di lekke matt noonu la noonu la kañaan di lekk jëf ju baax ndax kañaan mooy première bàkkaar bi nga xam ne moom lañu ñu tooñee yàlla ci diggante iblis ak aadama ndax keroog bi ko yàlla ni sujjootalal aadama daf ni duma ko sujjootal parce que maa ko gën yaa ngi ko bind ci ban bu ñuul kukk man nga bind ma ci safara tàkk-tàkk yàlla ne ko kon da ko añaane génnal ca lañ ko dàqe waaye ñu seetlu it ne njëlbeenu bàkkaar bi ñu tooñee yàlla ci kaw suuf añaan la ci diggante xaabil ak haabil moo tax alquran indil ñu ko ne lu na ba naba abnay aadama bilxaq id qarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wa lam yutaqabal min al axar qaala la aqtulannaka qaala innama yataqabalu llahu min almuttaqina euh, yàlla jàngal ñu ca alquran ne premier bàkkaar bi ñu tooñe yàlla ci kaw suuf kañaan la ci diggante xaabil ak haabil ndax dañuy wax ne maam aadama ak maam xawa ëmb bu ñu mës ëmb rek ñaari seex lay doon lu maam xawa mës a ëmb rek ñaari seex lay doon yàlla dogal seex bu góor bii mooy sëy ak seex bu jigéen bële seex bu jigéen bee sëy ak seex bu góor bii noonu lañ doon takkante waaye yàlla dogal xaabil ki mu juddoo ndoog muy iqlima dafa gën a rafet haabil ki mu juddoo ndoog ak labuudaa dafa gën a ñaaw haabil nag ne moom du takk kim kim kim kim juddoo ndoog euh, kim kim war a takk parce que dafa ñaaw kim juddoo ndoog lay takk te daf ko xaraam ñu dem ca maam aadama laaj ko ca xalaat ndax bi werante wi tàng dañu dem ci seen papa laaj ko seen bàyyi na leen génne leen sarax na kenn ku nekk génne ci lam am sarax ngeen teg ko ci kaw montagne bi yàlla dana réagir euh, xaabil dem génne xar mu baax indi teg haabil dem jël sabaaru dugub mooy takku dugub bu mag ñëw teg jamono booba bu ñu daan saraxe bu sarax bi nango safara mooy jóge ci kaw asamaan si dikk lekk sarax bi bi ñu ko defee sarax bi asamaan si sawara wi jóge ci asamaan si dikk jël xar mi ñu ne kon yàlla nangul na xaabil ne moom moo war a takk labbuudaa kee takk iqlima mu ne nag du dégg loolu ne da koy rey waaye ci mbaaxu yàlla kenn ka ne moroom ma soo yëkkatee sa loxo jëm si ci man pour rey ma man du ma yëkkati mukk sama loxo jëm si ci yow ndax yàlla kat bi muy nangu sarax bi ci ñun ñaar ki gën a ragal yàlla la nangul kon mooy première bàkkaar bi nga xam ne tooñe nañ ko yàlla ci kaw suuf Euh, ñu jëlewaat ci geneen góor goo xam ne mi ngi jëlee ci baayam muy Saalim mu jëlee ci baayam mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kañaan nekkul ci ñaari nit ñi ñu ne ko ñaar ñan la mu ne koo xam ne yàlla def na ca dënnam alquran muy jóg guddi di ko jàng nee na kooku kañaan nekkul ci moom parce que alquran jee koy raxas ba mu set ñu ne ko ak kan mu ne koo xam ne yàlla jox na ko alal mu dëkk ci joxe guddi ak bëccëg nee na kooku yàlla toxal na kañaan ci xolam yàlla da ko ciy génne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñu ci xaddis ne ku añaan du nekk sang mukk fu ngeen fekk koo xam ne sang la jàpp leen ne kooku amul ci kañaan dara te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag cang gi mu doon laa xarwa jomb ko parce que bi ko yóbbu yaayam yóbbu ca kër xalimatu saadiya mu dem fa di nàmp ca la ko fa jibril fekk defal ko anesthésie xar xol ba génne ko raxas ko ba mu set génne ca rëy génne ca kañaan génne ca bon mboolem taq-taq yi gàkkal doomu aadama foofu la ko jibri raxase kastewaat xol ba sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi loolu nañ leen indiloon ci seen émission kañaan doon leen ko defal ci seen émission euh, sukran ci dakar midi point net wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa